jaa ngeen jëfati mbokk yi wéy ànd ak ñun di ñu seetaan boole ci di ñu déglu ñu ngi daal di amaat bégte gu rëy ginnaaw ba ñu dellu sant borom bi ñu may ngëm pasif dëggumat yërmande ak ñëpp ñu daal di julleeti si sangu sang yi gën a mati waajur ñaanal kilifa diini ñu waate yi ñaanal mbokk yëpp yi nga xam ne jamono ji ñu ngi wéy di ànd ñun di ñu seetaan boole ci di ñu déglu fi ñuy baaxoo di ñu dégloo seen chaîne YouTube Biorahma ak si seen site bi di www.biorahma.com muy site internet goo xam ni daanaka dañuy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu jiw muy lu naturel ngir waxtaanee ko ngir ku ci nekk foo nekk nga mën ko jëfandikoo ci anam yu sell te dégg ngeen discours bi nga xam ne président de la république def na ko ci avril bi ci discours bi ñu am ci lenn loo xam ni ñor nañu ñu jukki ko ci. muy jëm ci nan lañu mën a def ba aar guy yi nan lañu wën a def ba sàmm guy yi ngir doole leen ndax bokk na ci lu am solo woo xam ne président de la République xam na ko loolee nag dafa di war ñu ñun ñi nga xam ne dañuy yëngu ci lu ni mel ñu rafetlu loole di kàddu gi ndax guy léppam njariñ la muy xob bi muy doom bi muy fruit bi lépp loo ca nar rek lu ne rek daanaka soo ko yéree mën ko koo gis kon loolee dafa di wareef nag bu ko njiitum réew yëkkatee kon moom xam na solo bi moom ñun ñu ci nekk nag ak askan wi ñoo ko war a gën mën toppatoo ngir di ci waxtaane ngir kàddu googee sax président yëkkati mu doon wareef ci ku ci nekk ñun sax nga sàmm ko jàpp ko ndax mën na laay ngir garabu bi fruit bi mën na la dimbali ci wàllu alimentation ndax dañ koy faratal di ko jëfandikoo ci yu bari bari ndax fruit bi tamit baax lool ci wàllu calcium waaye baax tamit ci wàllu ak rouge ak yeneen xeet yu bari yoo xam ni ay feebar yu ñu song guy bi ci boppam am na ci solo waaw su doole xam ngeen ne huile baobab muy huile koo xam ne daanaka rek dafay noddanti ay cër di la musal ci wàllu vergeture waaye du noddanti saw yaram ba mu liis loolee sabab na sax ñenn ñi suñu defee yenn opération ba noppi nga yombal catrisation bi daan nañ leen digal ci ñenn ñi ñuy jëfandikoo li nga xam ne moo di huile baobab soo demee tugal gis ngeen ne bokk na ci produit traditionnel bi nga xam ne foo dem ci supermarché yi da ko fay seen ndax solo bi mu moo tax ñu am arthrose dañ leen farataal di wax ne soo leen amee seen jus jël leen kudd gu ndaw ci poudre baobab bi yëngal daal di naan ñi nga xam ne am ay problème constipation ba ñi nga xam dañu problème diarrhée ñi nga xam dañu am ñoom ñëpp bokk nañ leen ci leen di digal xam ngeen ne xobu buy bi buy bi xob bi si boppam solo ba ci am dina dimbali nit ki ci wàllu yenn xeetu feebar yu mel ni asthme daa nañ lay digal ñu koy invité di ko naan ak ñi nga xam ne dañu am ay affection pulmonaire ay sëqët ay xuufaan ak yeneen xeet yu ni mel xam ngeen ne kooku buy bi ay jamono moom lañ doon def palaat di ci def lekk loolee ak di ko dokaree leneen lu bari di ci def ay caq ak ay lam ak yeneen xeet yu ni mel xam ngeen ne car wi xas mi bokkoon na ci lañ doon defal yére ak di ci defal ay buub kon léppam rek solo la kon dafa di wareef rek lu mel noonu suñ ko déggee ñu gën ko ñoŋal gën ko taxawu gën ko jàppale ngir li ci des néew sax ñu sàmm ko ndax ëllëg suñ ko deful suñ ko soxlaa mën nañ ko gàddaay feneen jaa ngeen mbokk yi doon wéy doon ànd ak ñun dañu déglu ñu indi si woon rek jukki jëm ci euh, bataaxal bi nga xam ne njiitum réew bi waxoon na ko ñu ci lenn loo xam ne gis nañ ci suñu bopp muy wàllu guy ñu jukki woon ko rek wax ko ngir jaajëfal président de la république taxawaay bi mu ci am di askan wi rek ñu gën ko jàpp du ñàkk ne am na ci ay meññeef yu amit solo yoo xam ne umpé woon nañ ko waaye suñ ko dee waxtaan rek dina tax ku ci nekk foo nekk nga mën ko jàpp jaa ngeen jëf mbokk yi dama abonné leen suñu chaîne YouTube Biorahma kàddu gi ngeen ànd ci Ablaye Ndiaye www.biorahma.com mooy site internet bi nga xam ne soo ko yëree lépp loo sa soxla lu ne incha allah soo ànd ak ñun ci WhatsApp bi 77 244 98 05 dinañ la daal di gindi gàddu la teg ci yoon daal di la fàttali jaa ngeen